ku ci mel ni Nelson Mandela am na également ñu wax loolu y a des dem nañu ba ñenn ñi benn euh, maanaam euh, journaliste euh, camerounaise bu siiw dem na ba gis ni moom nee na yàgg nay bind ci wàllu politique mais nee na maanaam réer gi nga xam ni ah Ousmane Sonko def na ko riir New York ci jamono ji ak session ONU bi xam ni moo boole chef d'état africain te New York dafa ñoom ñëpp dafa ëllëm seen xel yi ñoom journaliste africain yi fa nekk ngir teewee session 78e session de l'ONU foofee ca New York alors loola tax ba ñoom tam ñu def ci benn tënk di wax ni réew Sénégal ci wàllu démocratie dafa maanaam démocratie am dafa dafa nekk. di wàññeeku lu mm. bëri ndaxte atum ren gi en tout cas la gis ci New York dafa wute lool ak at précédentes yi. lañ daan gis euh, Mantula def na mm. lool tamit euh, nekkul lu honoré réew bu Sénégal. ah nekkul lu koy honoré Marie mooy lii d'après lu ñu wax rek. Euh, ma ngi noonu uh-huh. Fatou Banga. Fatou Banga fii la ñuy wax Times Square. Square. te New York dem naa fa fii ku ñu fa génne sa photo rek ndaanam nga. maanaam eh, eh, maanaam concert yi gën a mag ci àdduna bi. buñ ko bëggee publicité fee nañ koy publicité. Hmm. fii boo fi jaaree rek mu mel na tey joué nga Olympia. Hmm. maanaam mu mel na tey nekk nga ci haut niveau. gis nga campagne électorale bu États-Unis yi am yëpp affiche yii. Hmm. ña fay nekk ñoom Joe Biden. ñoom Bill Clinton ñoom Obama fii nañ leen di jaaralee. fii nañu wax Times Square dem naa fa. Euh, ak association des femmes euh, yaayu jumeaux yi mais place la boo xam ne tey bu sa fa photo génnee rek génn rek xamal ne dépensé nga ay millions yi ay millions millions ah, ah. li nga xam ne moom mooy sponsor yu mag yi nga xam ne yenn boison yi benn yoon lañ fay jaar ci at bi ndax seen budget hmm. attanu loolu hmm. ndax àdduna yëpp lay gis ndax place boobu mu ne Times Square la tudd dem naa fa dem naa fa li nga wax nag ci le Nelson Mandela d'Afrique bettul kenn. bettul bettul waaw kan moo ko def Nelson Mandela d'Afrique. moom la ñëpp di laajte. kaay ma wax la ko nag tey. kan moo ko def président Macky Sall. Hmm. laaj ma lu tax. lu tax lii yëpp moom la. Mhm. moo promouvoir candidat bi. Mhm. moo promouvoir Sonko. <laughs> moo nekk directeur de campagne pour la promotion de Sonko. mooy agence marketing Sonko promotion promotion promotion. Mm. politique ak lépp. parce que lii yëpp mu ngi amee ci nguuru Macky Sall. Macky Sall moo promouvoir la promotion humaine personnelle de Sonko et le et le parti de Pastef parce que Macky Sall yàlla may na ko wax dëgg yàlla lii mu defal Sonko nii oh rëy na tey bu ñu demee ba naan kal lay opposé da Macky Sall lay opposé. ñëpp moo ngi lu tax ñu xam ko. ay comportement war a ay ay ay ay ay ñàkk bokk li nga xam ne mooy xalaat. kii ne anti système kii ne système dug dug dugumal système bi looloo waral ñu promouvoir ki nga xam ne mooy Sonko ba place bi Nelson Mandela amoon nga xam ne irremplaçable dans le cœur des Africains maintenant Sonko est en train de gagner l'Afrique parce que dix part dix dix pays bu ñu demee bu ñu pacifié wu dans l'esprit du Pastef l'Afrique devient une autre benn continent boo xam ne il s'est s'est réveillé avec des hommes de valeur ku mel ne Sonko bi nga xam ne dafa nekk icône Euh, président des États-Unis d'Afrique. kon gisoo nit ci dañu namm Kadhafi. Ah, waaw di ko gis di ko gis si Sonko. waaw kon gisoo nit ci dañu nam Thomas Sankara. waaw kon gisoo nit ci dañu namm Nelson Mandela boobu nga ah. wax. <laughs> waaw mais parce que yow tu as fait une analyse pertinente. Mm-hmm. ces icônes images d'Afrique. Mm. yi nga xam ne ñoo doon marqué gravé dans l'histoire aujourd'hui ñoom Martin Luther King corps d'un homme qui s'appelle Ousmane Sonko. Mm. voilà voilà c'est ça. Mm. Euh, son directeur de campagne, le directeur de l'agence pour la promotion de Sonko, a vraiment, il a fait un beau travail pour M. Ousmane Sonko. mais man euh, Kouthia yow gis nga ni président Macky Sall moo ko promouvoir mais man dama gis ni. jamono ji ñu toll maanaam euh, li sénégalais di dund euh, dañoo gis seen bopp sur l'antisystème ci personnage Ousmane Sonko par exemple Mantoulaye wax na ko sànq tey boo gisee mel Nelson Mandela la woon euh, sud-africain yépp soxla la libération li ñu maanaam euh, ñoom dañoo soxla woon libération dëkk ba ba tax ñoom ñëpp ñu doon incarné maanaam Nelson Mandela di incarné cette libération là ñëpp nag wékku ci moom ñu jël ko emprisonné gis nga li mu li mu créé woon un peu partout dans le sax laay wax alors loolee tey dafa mel ne moo daal Ousmane Sonko Mantoulaye sénégalais ñun ñoo bëgg a tekkeeku dañoo yeewoon daa ni ñu bëgg tekkeeku. alors que ñoom dañoo gis et puis euh, li kii ne di di pays yëpp donc dootul juste le Sénégal. Hmm. booy xool danga naan Afrique. moo tax ma ne donc dafa mel ni euh, martyr dafa judduwaat Luther hmm. King ñooñu ñooñu ñooñu lutteur yooyu pour euh, l'Afrique uni dañu judd dafa judduwaat à travers bañkat bi donc ba ba suñu maam Léopold daan génn ñaani bañ naa defe naa lii moo taxoon dëgg la mhm. am na solo am na solo alors donc euh, voilà Ndiaye Tech nee na bonjour la team bonjour à vous Mbacké Gueye également ñoo ngi ko nuyu mhm. Aminata Camara mhm. euh, Adama Camara voilà donc euh, rejoignez l'équipe euh, team bi mi ngi noonu euh, équipe matinale M4 TV Kouthia ak rek Sedam ñoo ngi nii ànd ak yéen nag fi léeg mi ngi noonu Kouthia xoolal li waaw waaw kay xam wax yaakaar ne da ngay dangay dangay da ngay maa ngi nii. yaa ngi nii maa ngi nii. xam nga nag Lamine. la Lamine kenn du moom. Oh, oh, oh, mhm. Lamine kenn du moom. nga nii Kouthia dañu bëgg nga commenter ñu lii. fii fii fii gis nga fii nii. fii ñu wane gis nga Time Square fii ñu wane léegi photo Ousmane Sonko ca kaw place la boo xam ne les cinq continents les touristes des cinq continents fa nañ daje japonais coréen arabe. naar africain fa nañuy daje place boo xam ne maa ngi woon gis nga Times Square yooyu ngay gis na la ca kaw mhm. da ngay fay lu cher pour jàll fa mhm. fa nañu taxaw bu ñu bëggee xam lan moo xew bu ñu bëggee xam ban politicien moo bëgg def déclaration genre télé ay télé yu ñu la tegle maanaam boo fa bu la fa defee rek mooy sup super naadaan maa ngi nii ci mbedd États-Unis euh, ak association des femmes yi nga xam ne mooy yaayu seex yi loolu yàggul wax dëgg yàlla chaque année day dem ay ma jox leen benn annonce tamit que je suis nga xam ne dañu am ay jumeaux yaayu seex yi nekk Sénégal ak ci diaspora bi man maa seen ambassadeur ndagam aw ma seex waaye du ma seex waaye porteur de voix la moo tax jëm ko place bii ñoo xam ne dañ fa war a Ousmane Sonko du place bu ndaw de place bii ñoo war a Ousmane Sonko du coono fay ay ki nga xam ne mooy Martin Luther King ak kan mooy ak ki nga xam ne moom mooy kii euh, ki euh, waa ji waa Malcolm X ñoom ñoo fay nekk daanaka mag yooyu kon yaakaar naa ne tey le Malcolm X de l' Afrique c' est Ousmane macha allah am na solo ah parce que ñooñu ñëpp booy xool dañ leen tënkoon ci injustice donc yàlla dafa àndiwaat li mu nekk benn genre révolution li ngay wax euh, président def na si lu baax a baax li nga xamante ne mooy promotion am. et bu ñu fàtte ni malgré que sax nit ci dañu nekk ci anti système boobu mais aussi nañu fàttaliku ni actuellement nit ci bëgguñu injustice. Mm-hmm. oui ñu noonu nit ñi bëgguñu injustice encore une fois voilà donc euh, ñu ngi ko nuyu moom Adama. Adama Camara depuis la Suisse moom tamit mi ngi bàyyi xel lu bari ñu ngi koy nuyu. di nuyu bon je je profite pour def ko petit coucou Marie. tan Adama waaw sama nit la. ah d'accord waaw waaw waaw moom xam na man xam naa maa ngi koy nuyu bu baax. Euh, di ko def coucou bu baax di ko ñaanal tawfeex ak taysir bu bari si moom. Adama doo ko nuyu. Adama bon Adama depuis Suisse. suñu benn internaute la. ah seen xarit la. waaw mhm. Adama Camara ku baax la. ndax sant Camara ci réew mi dafa yombul. dëgg la est-ce que xam nga xëy dégg ñu ne la non sant nga ne Camara boo ko xasee ba dégg sa journée day neex. kamara ah? sant la boo xam ne xolal sant noble la. Mhm. boo demee Mali fekk ko fa làmbal mhm. boo demee Gambie fekk fa làmbal mhm. boo demee Burkina Faso fekk ko fa làmbal mhm. boo demee Niger fekk ko fa làmbal boo ñëwee Sénégal fekk ko fa làmbal boo demee Haute-Volta mooy ak mu mu nekkoon Burkina Faso da nga ko fay làmb waaye sant Camara xëy koo ak sant Camara boo woo toogee ba ngoon yoroo xaalis xamal ne kooku dangaa <laughs> na santu Camara waaye Camara yëllee <laughs> bëri na dàkkantal de <laughs> Camara u fo ñi ne ñaabanate Camara a du ñaane Camara a baxara na ta faraxana ɓurɗon kaɓaraji miyaji hay aha ah, hu mana ah, hano hu dur hono beda bulu ñeñe sara kadi ñeñene kara ɓaɗo ɗo bujon aɗa flaade kono huru ho huru ho dina dégg li ngay wax baña dégg ka waye bambara yu leer nañu la ko barke yarante bi ay bambara yu leer nañu la ko yàlla yàlla dafal jàmm amin allahumma amin ya rabbal alamin toogaay bi machallah ala doo meneen yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla musal ne. doo ko mën a gérer. ndeysaan amiin succès da nga koy gérer ànd ak moom ndax da ngeen simple sympathique te sympa. ndeysaan <laughs> yaa wax lii. ni nga rimee dafa neex dama ko rimee <laughs> je suis un artiste complet. macha allah wallaahi ah, macha allah. je remercie toute la population sénégalaise. ndeysaan dans leur affection pour leur Kouthia Market mais est-ce que xam nga léegi GD dafa am sécurité. Hmm. Ah. waaw dafa am sécurité. ah kon ni ma gis suuf yow la ñu àndal. Ah, déedéet. lan la du ñaar nit. te ñun ñaar ah, ñaar laa gis suuf. Sénégal ñaata bu ko mujjee bu ñu ko mujjee sondage ñaata personne lañu. 17 millions. 17 millions jàppal na 14 millions yëpp ñoo sécurisé Kouthia. alhamdulilah macha allah dans toutes les couches nag sociale. Hmm. ndeysaan religieux sportif musulman et chrétien. dëgg la ñëpp kontaan. yàlla la ko réaction yu positive. Mm. vraiment laay am ay ñaan de protection national. Mm. du ñu nangu mais yow dootoo national tu es international Kouthia. parce que dañoo. dañu juum dañoo juum du ah. Kouthia Serigne Abdou Mbacke Sine. waa mais mais mais comme que le nom de ne man sénégalais man maa leen desal léegi man maa leen war a man du ma bàyyi wax dëgg yàlla am na ku wax fii barke démb yaa ko wax. Mhm. nee na 30 laa am. 30 ans may seetaan Kouthia. kon donc wax dëgg yàlla damay kontaan ci Kouthia Kouthia est patrimoine dañ koy protéger kon ñu protéger le baobab et le lion notre signe man est-ce que xam nga temps yii daa dem parc an sax ñu utal ma cage. ah waaw ñu may seetaan. man du ma ko seetaan. non non non non man sama bopp maa ko doon nangoo. Euh, musée musée des des civilisations. foofu ñu fay ñëw du bëri. Ah, ok loolu <laughs> danaa fa yóbbu sama tur yow bu ñu xamee ne yow yaa ngi fa. <laughs> waaw ñëpp a ñëw di visiter. mais ma bëgg ñu may raay. dinaa ko def da nga namm kale. dama namm kale rek may raay après kay lay rek nañu ut benn cage utal ma fa dama raay mooy dugal sama loxo. dafa namm kale ah man la ñu wéy je fais partie des patrimoine humain de la population sénégalaise mais man Toulaye. oui yàq ma boobu est-ce que xamante li ngeen sañ si dafa rafet. dëggantaan. la ilaha illallah muhammad rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci ni lan la mën def yéen a ngi bill yéen a ngi mel ay noirs américains yoo xam ne ñu ngi dëkk ca bu ñu naan time. Hmm? waa kay ci booru Ohio. yaa ñu yóbbu maa leen wax loolu teint bi nga ne dafa chocolaté. chocolaté mais man sama ba dafa ñuul. waaw mais chocolaté chocolat ah, noir chocolat noir. ak ñu raay bi set bi macha allah. du noir carrément <laughs> dafay brëm dafay brëm brëm brun mooy noir du ëpp marron bi maro bi du ëpp noir. mooy brun dañuy tase bu dee day brun. mooy brun ah, <laughs> damay sensibiliser rek maa ngi si xeesal bi ba léegi sama thème boobu mooy ibbi par ngoon. waaw euh, ba tey si xeesal rek laa taxaw ñuul ko ko gëm sa bopp rek. dëgg la loolu rek la sensibilisation yow xeesal sa moo la jéppi. Ah. parce que buggul sax yow parce que yow da nga koy xeex. fu mu jaar boo fa jaaree mu wadd. damay xeex xeexal yow moromu xeexal yow sa yaram moo tàmm moo tàmm moo tàmm ba yow nag eau de rose ngay tuuroo. naka sa parfum bu am alcool. non bugguma ko da la dégradé <laughs> barke yonent bi am am na solo alors ñu ñu ñëw euh, donc Jules euh, mun nañ dem si euh, quotidien yi. Euh, ci mel ni le voilà le soleil quotidien le di le soleil national te la mu xëyee moo di euh, cinquante milliards mhm. euh, de francs CFA de la BOAD au Sénégal maanaam lu jëm ci wàllu investissement bi nga xam def nañ ko ci TER bi mantulaay mhm. ñu ngi koy waxaat jam ñaajo AIBD terre et énergie solaire alors xam nañu ne dafa jur coow boobee ba tey nit ñi ñu ngi ciy wax nag di wax ni euh, TER bi lu mu jël ci koppar dafa bëri euh, donte ne am na ñuy wax ni première ba mu defee un an am na euh, lu mu génn ci ay recettes. voilà donc boobu ba tey nag euh, am na ñu bëri également ci geneen wàll wàll gii di ci wax ni lañ ci jot ci ay koppar dafa bëri euh, buñ ko comparé ak yeneen teer yi nekk ci en Côte d'Ivoire par exemple wala au Maroc alors fii Sénégal suñu terre dafa cher lool mais lan la ñu jëral lan la ñu jural ñun ñi nga xam ne ñoo ko utiliser loolu beneen question la également euh, bi nga xam ni waa Le Soleil posé woon nañ ko tey ji Mantoulaye waa mais soxna Marie euh, terre bi lan la ñu jural loolu lu jar a laaj la man gowuma ni pertement mën na si am parce que boo xoolee prix bi nga xamante ne moom mooy euh, prix bi pour déplacer wu Marie defe naa euh, lu ñuy génn si terre bi par jour bu ñu nee pertement wala lan la ñu jural wala dafa économiser courant ah mais loolu c'est normal dafa dafa jël courant bu bari soxna Marie loolu day mujj nekk dëgg parce que bu fekkee terre bi la ñu naay dafa jël courant bu bari masamala ñi nga xamante ne ñu si kër gi. Mm-hmm. parce que boo xoolee tey volt yi nu muy dawee dafa mel ni man dañ ko doubler wala. naka la mm. euh, ndax riirum courant gi moo fiy jooy euh, terre bi nag bu nekkee pertement dañu ko wax euh, loolu man gobe gu ma ko démarré mm. parce que xaw ma lan lan si si yan base la ñu sukkandiku pour teg ko et puis ndax dañu génn bilan bi dañu génn bénéfice bi <coughs> lan la ban mën a wax ni pertement lañ ko mën a jural mm-hmm. mari terre bi xam nga ñaata lay lay dugal par jour yow da xool benn aller retour mu def 1000 francs par personne ça dépend si fi ngay yéegee diggante euh, ñun ñi nga xam ne dañ koy ah, jël. am ñuy fay 1500 aussi ak ñuy parce que par classe la classe VIP voilà 2500 la donc loolu yëpp da nga koy xool marié. mi ngi noonu mhm. mi ngi noonu donc voilà donc euh, terre bi en tout cas euh, c' est pour tous les sénégalais sénégalais ñoom ñoo ko moom. Mm. encore une fois nañ ko préserver man nag li ma li ma àndul mantulaay mooy kas maanaam di mer di yàq. wala di mer yàq soxna Marie kenn yàq sa Euh, donc mer di yàq wala mer di toj loolu kenn du ko kenn euh, gobew ko kenn endosew ko kenn kenn waxul nit demal nga toj ji la ngay yàq si yow lay ñëwaat euh, xam ni xaalis boobu ñu koy liggéeyaate encore yow sa contribution mu ngi si wala bu ñu paree di dinañ ko dolli si lu mel ni genre facture yooyu ngay wax muy ndox bi ak électricité bi donc par force da nga koy yéegaat mm-hmm. da nga koy yéegaat donc nañu bàyyi yàq bi lépp lu nga xamante ne ñoo ko moomal suñu réew nañ ko jéem téye na mu waree bëgg désormais euh, ci euh, ndorteel euh, chaque matinale ñuy fàttaliwaat parce que loolu day tax rek waa SETO moo xam waa SETO ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllu li tax sénégalais di consommer des choses ñu gën a mën a delluwaat di bàyyi xel sénégalais yi di wax ne sénégalais yi sonn nañu ñi nga xam te ni mantulaay fay nañu seen njëgu compteur te gisuñu gënu compteur ñoom ñi ngi alerté waa SETO SETO ñoom la waxal voilà donc encore une